السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونور سراد المستقيم مولانا الشيخ مشيخ سعد الأبي وخيرته ونبيك waaw ngi leen di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, xalifatul am boobu euh, ji nga xamante ne mooy xalifatul am bu seex na seex Ahmadou Ndiaye euh, ñu ngi leen contacté depuis démb la gaañoon bi ci guddi ay côté minu yaakaar naa Euh, ndak yooyu soriwul ñu lañu jot euh, xabaar gi moo tax ñu ngi koy tagg umma islamique yëpp di ko tàggee nuuru siraada yëpp di ko tàggee euh, fu jullit nekk rek koy tàggee xalifatul am boobu di xalifa Cheikh na Cheikh Amadou Bamba Ndiaye nee nañu wàññeeku na guddi kon nag ñu koy jaali taalib yëpp yàlla na ko yàlla a yetti ceerno moon ceerno wawa on yooɓ kala ko haali daro ɗon he kala ko ɗum wawi won siko guppol siko fewnude